dañuy doore waxtaan wi ci kàddu yi nga xamante ni bi Emmanuel Macron yëkkati na ko mu nekk kàddu yoo xamante ni daf ko wax jëmale ko ñi nga xamante ni bi ñooy société français yi nga xamante ni bi ñoo implanté wu ci réewu africain yi xamal leen ne leen faw ngeen wane ak xereñ waaye tamit faw ngeen wane ak mat ngir mën a compétir parce que Afrique mënatuñu faa nekk ni nga xamante ni noonu lañ fa nekkee woon démb ak bërki démb loolu mënatu la ne mu ne faw relation bi nga xamante ni bi mooy dox sunu diggante ak Afrique mu nekk relation boo xamante ni bi gagnant gagnant lay nekk mu nekk kàddu yi nga xamante ni bi mooy yi Ousmane Sonko yëkkati woon même kàddu yooyu ñu dégg ko ci ki nga xam ni moom la ñuy wax Emmanuel Macron loolu nag bu amee Emmanuel Macron wax ko ci pénc mi wax ko bu fekkente ni dañu jàpp ni ñi nga xamante ni bii ñooy société français yi lay waxal kon jàpp naa ni ñi ngi nax sunu bopp man d'abord dama gëm ni Emmanuel Macron kàddu yi nga xam ni moom la yëkkati mooy yi nga xamante ni mooy yi jeunesse africain bi bëgg a dégg maanaam ñun li ñu bëgg a dégg ci jamono ji nekk ni nga xam ni tey sunu leader politique yi nga xamante ni bi tey ñoom la ndaw ñi gën a jox bopp li ñuy wax même kàddu yooyu mooy yi nga xam ni moom la Emmanuel Macron yëkkati mais dama gëm ni ay tappale rax na ci biir kàddu yooyu nga xam ni moom la yëkkati parce que kàddu yi wax la te dañu toll moom ci jamono joo xam ni warta nekk lu muy wax waaye dañoo war a jëf te jëf gi soxlawul muy ñëw di taaj société français yi nga xamante ni bii yàgg nañ nekk ak ñoom di doxal ak ñoom ni ñuy doxalee di leen taaj ci pénc mi di leen waas maanaam lim leen di waas c'est pour bégloo la pour ñu mën leen a accepter man dama jàpp ni kàddu la goo xamante ni gii dafa ñëwaat ngir nelawloo Afrique gi nga xam ni tàmbali nañoo yeewu commencé xam fi ñuy teg seen tànk Macron ñëwaat ngir nelawloo ñu mais Macron na xam ni Afrique googu doon nelaw dakk na parce que nit ñi xaaratuñu rek ay wax parce que tubaab yi yàgg nañ ñoo wax di ñu nax nit ñi dañu xaar ay jëf yoo xamante ni bii lu wér la ñu xoolaat li nga xamante ni bii noonu lañ war a mën a nekkee ànd ñu ànd ànd ab nawle loolu warta nekk rek ay kàddu jamono ji nga xam ni moom lañ nekk nii donte wax nga ni société français yi. ne leen li ma leen di wax damay tenir ak yéen langage de vérité mais lu tere loolu nga waxoon leen ni ñu war a doxalee mais pas nga ñëw ci pénc mi di ko wax boo koy wax ci pénc mi kon doona tut ñoom la wax ji jublu mais ci ñun nga bëgg a jëbluwaat wax jooju ngir fas yéene ñoo nelawloo je pense que ni africains yi yeewu nañ en tout cas li ngay wax bu méngoo wut ak say jëf di ñàkk lépp loo xamante ni bi amoon ngeen ko ci Afrique c'est parce que africains yi tey nelawuñu xam nañ li nga xamante ni bi mooy li xew teyit ginnaaw bi ñu xamee li xew xam nañ la nga xamante ni bi mooy seen njariñ te seen njariñ googu mooy la nga xamante ni bi ca la ñuy jëm parce que loolu mooy dëkk jaratul ngeen di ñu jéem def ay discours yoo xam ni discoursu naxaate la ña ngeen doon nax démb ak bërki démb seeni sët xam nañ ko te jàng nañ ko gis système bi nga xamante ni bii moom ngeen daan jaar pour nelawloo ñu di ñu nax loolu mënatul a nekk kon bu fekkente ni kàddu yi naxe nga ci jublu leel ñu li nga xamante ni mooy li suñuy leader politique di wax te jeunesse africain bi bëgg a dégg loolu ngeen ñëw adopté même mbir mi discours bi ngir bañ a perdre li ngeen am faw ngeen jëfee ko bu ngeen ko jëfeewul bu yeboo ngeen xam ni bañ gi nga xam ni moom la peuple africain bañ njiital France yi ni ñuy doxalee parce que bañuñu population français déedéet c'est parce que am na ay français yu nekk ca biir France di ñaawlu taxawaay bi nga xam ni moom la France di taxaw ci Afrique kon nag jot na ngeen xoolaat seeni doxalin li nga wax noonu fexeel mu nekk ay jëf te yam ciy wax